mais juste un plaidoyer boo xam ne dañ koy def rek. Mhm. Euh, mu jëm déjà ci tasum xibaar fii ci Sénégal. Mhm. Euh, dañuy wax code de la presse président code de la presse appliqué dugal nañ ko mais code la presse des na ay décret d'application yoo xam ne ba léegi des na yoo xam ne président da ko waral a liggéeyee ngir ñu mu dox beneen bi mooy journaliste carte national de presse ngay yor. soo ma mayee ma génnee ko rek pour montrer ça au au à nos forces de défense et de sécurité yaakaar naa ne xam nañ ko sax. Hmm. lii mooy li xam ne moom mooy mandargaal ne diw. liggéey katam mooy taskatu xibaar lii ak itam li jëm ci. ci lii xam nga lii solution la. jàpp naa ne premier premier pas la ci solution. premier pas la parce que dëkk bi foo mënti nekk. ak àdduna fu mu mënti nekk da nga am carte boo xam ne mooy firndeel na diw ci lii. man am naa benn collègue boo xam ñu wax nañ ko takk deri leen waroo leen ko def. Mhm. on le fait et on leur tout le temps ça ñun ak ñoom warul nekk benn certaine animosité kon nañ ñu jàppale ci liggéey bi. ñun ñu koy def am na point boo xamante ni dama ko fàtte nga baal ma. Mhm. bëggoon naa nga àddu ci. Euh, muy arrestation yi nga xamante ci lool ci loolu laa bëggoon loolu laa bëggoon tëj gis nga ndem si yàlla Mame Less Camara euh, ci dernier rencontre yi xam ne moom partenaire privilégié engagé la woon ndax da doon wax ne seen ay ay ay doomam ak i sëtam ak i raqam ñoo fa nekk euh, am na loo xam ne da ko doon wax mu ni journaliste amul benn loi boo xam ne da koy respecté lu dul tribunal des pairs maanaam say pairs li xam ne dañ ko doon muy sa charte éthique ak déontologie boobu noonu suñ ko taxawalee ne diw lii la te dañ ñu nguur dafa jël code de la presse dugal ci euh, lii di correct mu nekk bon donc ab moo nekk suñu tribunal ñun mooy suñu tribunal balaa ngaa jël nit ne da nga koy yóbbu ci kanamu kaso ga wala da nga koy yóbbu yóbbu ko correct correct su defee liggéeyam ci nu mu waree kooku journaliste bi suñu deful ndànk sax mën naa ñàkk kay ma ñàkk kay itam